ci màggal gi nga xam ne tey mooy 18 safar ñu koy ànd ci ak association Cheikh Ahmadou Bamba bi di ko defee fii ci Brescia tey nag euh, vraiment ñu recevoir fii euh, la consul général euh, Mamadou Lamine Diouf ñaw teew ak ñun ci màggal gi excellence ñoo ngi lay nuyu di la ziar. Aliou maa lay nuyu di la ziar di leen sant di sant la presse bi ngeen xamante ne yéen a mais aussi di sant organisateur 18 safar bi nga xamante ne mooy tey li am ne mooy moom bésu bi. di sargal sëñ Touba di ko màggal di def li nga xamante ne moom mooy euh, màggal. Euh, excellence ñu ngi lay remercier di parlu excellence mu ngi fi ñëw ak délégation bu mag ànd ak délégation bi euh, Mamadou Lamine Mamadou Lamine Thiam. l'excellence Lamine Thiam mu ngi bokk ci délégation bi xam naa den del si moom excellence xam naa ne dañuy dem rapidement rek excellence nan nga jàngatee tey màggal gi nga xam ne ñawaat nga fi pour la énième fois nan bi nan nga jàngatee. Euh, màggal gu nga xam ne dellusiwaat na biir Brescia gannaaw at yu bëri ñu koy defee yi muy Montejaari. Euh, jërëjëf Aliou dinaa kontaan lool ci li nga ma laaj euh, Brescia dafa nekk symbole Pontevico nekk loo xamante ne ñëpp xam nañ bu ñuy wax ci mbirum sëñ Touba Pontevico fi ñu njëkk a jënd kër ci lañ bokk ma jàpp ne su suñu demee tey ba organisation ñu delloo delloosiwaat ko biir Brescia dañ ko war a tey ak ñaari loxo wax naa ko léegi ci sama discours. fi nga xam ne bërëb yi ñuy abal ñu ci ñu koy màggale dañ ko war a def comme suñuy kër téye ko tenir ko bale ko lépp loo xam ne day tilimal ne day ñagasal yorin bi ñu fexe di ko moytu loolu nag xale yi lañ ciy ñaax mais aussi ak jigéen ñi parce que jigéen moo yore kër ñu fexe xam ne lii ñuy abal ñu ko fiy defee suñu bëggee at bu ne ñu defee ko biir Brescia nekk foo xam ne ñëpp dañ fay daje nañu fexe ni ñu koy joxe ñu koy delloo ñu joxe ko ni ñu ko joxe woon. jërëjëf excellence loolu am na solo ñu gis dégg message boobu lancé nga ko sànq ci kaw cérémonie officielle bi euh, jàllangal si aussi message bu nga xam ne dem na ci yar gi ak xale yi ak dëkk bi nu mu soppeekoo ñu lay mastaw aussi parce que ren gis nañu ne euh, depuis euh, depuis février ou mars bi ay jafe-jafe yu bëri am na ci consulat bi nga jàllale message bu nga xam ne vraiment pédagogique ñu bëggoon a xam ban message ngay lancé askan bi pour ñu ànd ak dal ci jafe-jafe yu xam ne moom la moom la ñu commencé di gis si jamono ji. Euh, waaw merci aussi li ma gën a metti ci mbir mi mooy lu xew rek dañuy naan waa diaspora ñooy taal Sénégal mu mel ni ñun ñi nekk diaspora dañoo bëggul réew ma ñu jógee te Sénégal suñu réew la li xew ci consulat bi le 5 juin bi passé àdduna bi yëpp ñoo koy ñaawlu man man ñi nga xam ne man man lañ dënk kër gi maa ko njëkk a ñaawlu wax naa ko léegi ci sama discours nee naa leen consulat bu Sénégal bu Milan suñu xamoon ban njëriñ la am dañ koy teeg fukki loxo et ma ci profité aussi di sant le président de la république du Sénégal le président Macky Sall parce que tey li mu defal consulat bu Milan def ko au niveau de la diaspora ci ci ci xarañte ci infrastructure ci lépp loo xamante ne mën nañu des moyens des outils doo xamante ne administratif yoo xamante ne mën nañ ko dajale pour mun ci jàppale su suñu seetloo sous région bi ak suñu naataangooy nekk fi lu bëri lu ñu am fi ñoom amuñu ko. consulat bu mu laaj dina defar passeport dina defar carte d'identité dina defar ay documents administratifs lépp loo xam ne sénégalais soxla na ko war ko wut Sénégal soo ñëwee ci consulat bi ñu defaral la ko donc mu nekk un bijou boo xam ne état du Sénégal daf ñu ko jox ñu war ko préserver état nag nañu xam ne continuité la ñun ñu fi nekk dañuy dem ñeneen dañuy ñëwaat mais kër gi nga xam ne mooy consulat bi état bu Sénégal moo ko moom ñun ñoo ko moom mais li ëpp solo mooy sénégalais yi nekk na ñu xam ne aussi kër googu nga xam ne fa lañ ñëwoon di def seen i état bu Sénégal daf ko jënd. ñun ñoo ko moom bokkuñu ko kenn nee naa bu ñu bombardé woon Italie tey ba mu tas nekk dóom bu ñu ñëwee mun nañ taxaw ne fii ñun ñoo ko moom donc comme ñoo ko moom nag état bu Sénégal def ci ay millions yu bëri pour mu nekk loo xam dañ ñu ko jagleel nañ ko tey suñu ñaari loxo te bàyyi caaxaan ji ku nekk ku la neex far. mais li nga xam ne ñun ñoo ko bokk nañ ko teyal suñu bopp. mais euh, service consulaire yi fii que ñoom assister askan bi moo leen fi tax a nekk euh, association Cheikh Ahmadou Bamba nekk un relais du consulat général de Milan wala boog ñu nga xam ne ñoom ngeen délégué yenn pouvoir yi pour ñu mën koo yeggali ci askan bi yaakaar naa ne loolu moo tax nga teew fi tey may laajte nag ban assistance bu nga xam ne moom ngeen leen di porter bu nga xam ne dana permettre ñoom ñu mën a accomplir cette mission. Euh, jërëjëf jërëjëf Aline sa question bi am na importance lool. parce que dama am habitude di wax ne le consulat général bu ne woon usine. Mhm. matière première mooy association yi. Mhm. ak daayira yi. Mhm. parce que tey ñoom la ñoo tax ñu def ko fi. maam habitude di wax ne suñu toogoon. toute une journée. te benn sénégalais ñëw fa. ñu def ko deux jours. état bu Sénégal dafa war a tëj consulat bi. xam ne amul njëriñ. li may ñëw nag association ak daayira ay relais lañu. ci li nga xam ne moom moo ne. mooy liggéey bi. suñu liggéey mhm. liñ ci nekk relais mooy mhm. comme wax naa ko léegi mun dañuy communiquer ak ñoom mhm. mais dañ leen ubbil suñuy bunt lépp loo xam ne dañ koy def ñun au niveau des consulats mun nañ ci waxtaan ak ñoom ba ñu gën ko yombalal dafa ñu nekk lépp loo xam ne dañ koy jàllale ci communication pour mu dem ci askan gi association mun nañ et vice versa. Mhm. parce que dafa am loo xam ne ci association lay xewee ñun duñ ko yëg. duñ ko yëg lépp loo xam ne yëg nañu ko loo xam ne dafa war a gàllankoor ci. ci bi ñun dañu ko war a indi. ñu seet nan lañ ciy taxawee boo indi ci ay saafara. Mhm. Mhm. en tout cas sans les associations. le consulat. n'a pas assez d'importance. par rapport aux usagers. parce que tey. les associations mooy suñu relais. mooy suñu collaborateur numéro un. te wax naa ko léegi. ñoom tey ñoom ñooy la matière première du consulat général du Sénégal. Euh, excellence bala ñu laa bàyyi ñu gis ne manquement yu am jamono yëpp mooy jafe-jafe yu consulat bi dem ak askan bi mel na ne kon donc relais boobu wala liggéey boobu am na fu sooxee digoon nga ma fi ne ma war ngeen a génn dajeeg association yeeg askan bi mën na am boobu ba léegi amatul am na lu tax lan mooy perspective yi nga xam ne mooy gën a ñoŋal communication bi mooy gën a ñoŋal ànd boobu. waaw xam nga aussi toujours dafa am loo xamante ne euh, dañuy naan la la diplomatie est tey dañu war a rencontre association yëpp. Mhm. jafe na jafewul. Mhm. commencé nañ ko ci Venise. Mhm. waroon wàcc ba yegg si Milan. mais dafa am li nga xam ne sa doon les moyens d'accompagnement. parce que bu ñuy seeti association. dafa am nañ la ñuy jóge li ci ëpp nag dañ daan communiquer ak ñoom ci ay not ci ay lettres. fi mu ne on est de fair le site. et je crois que fii ak fin du mois bi site bi dina génn. mu nekk moyen de communication bu ñu def aussi entre ñun ak la population. Euh, ñun on va rencontrer toutes les associations. Mm-hmm. li tax nag mu xaaw a jafe ci ñun. Mm-hmm. association bu ñu fédéré woon. Mm-hmm. moo ñu gën a yomb parce que on est en train de travailler sur la fédération des associations. parce que tey bu fekkee individuellement. association ku nekk da nga bëgg a demal sa bopp. association de ville. association de tarixa. association de koñ. après à la fin day naqaree rek. et am nañ ko sax boo ko seetloo ren. on n'a pas fait ce à domicile. Ah, ah. parce que tey euh, associé vendre yi ñu daan jël. Ah, dafa am bépp ñoo xam ne ay groupe de personnes lañu. Mm-hmm. dëkk benn dëkk. ne ñun nos ressortissants de Mbacké les bëgg journée consulaire. Mm-hmm. day jafe ci ñun. Mm-hmm. parce que bu ñu ko defoon ci gox bi yëpp. bu ñu nee Pontevico wala mu ne Brescia association bu Brescia la. yeneen association na yëpp bootu ci association Brescia. su ñëwee ñu gën a mën a yombalal liggéey bi. moo tax nag man il faut ñu organiser waat. ci loolu suñu perspective la bokk. Uh-huh. ci suñu programme la bokk. Uh-huh. aller rencontrer toutes les associations. Uh-huh. mais il faut ñu xam aussi ne. on on gère huit régions. yoo xamante ni ñun lañ rek. te dans chaque région il y a une multitude d' associations. et en train de travailler sur la fédération des associations. jërëjëf excellence xanaa ñu ëlbatiku rek euh, son excellence euh, monsieur Thiam euh, monsieur Thiam ñoo ngi lay dalal fii ci Brescia yow moom kenn doo dalal ndax. xanaa da ngay dalal sa bopp parce que vraiment yéen ñaar ñi boo ak man wala ak ñeneen ñu nga xam ne ñoo ñuy suivre fii yàgg nañ ci diaspora bi nekk des éléments de la diaspora ba ñu toll benn moment bu nga xam ne ay ndomba tànk ñëw na ci yéen yow nga nekk benn excellence benn euh, ambassade bu nga xam ne son son excellence ba le président Macky Sall nommé na la fii ci Italie lan mooy rôle rôle boobu rôle boobu nga xam ne jax nañu la ko ak fan nga toll ci liggéey boobu. waaw asalaamaaleykum Seydina Aliou ñu ngi lay nuyu. voilà di ziare tamit mbokki mm-hmm. Mm-hmm. taalibe yi nga xamante ni. Mm-hmm. teew nañ ci euh, màggalu xaadimu rasuul bi. dañuy ñëw rek ci sa question bi. voilà comme ni nga ko xamee rek. yàgg nañ ci réew mi. te jataay bii. ñu toog. yàgg ngeen fee toog vraiment. ñi nga xam ne ñoo daan tooge bilaay dañ leen daan jële ci àll ba mhm. mbaa ñu jële leen Sénégal mbaa ñu affecté leen fi ñu ñëw mhm. di toog toogaay bi nga xam ne moom la ñu toog tey le président Macky Sall nag bi nga xamante ni day wut réew mi mhm. ñun ñi nga xamante ni ñoo njëkk ànd ak moom dañ ko ñaanoon ni ko saa bu jëlee réew mi mu jéem a tànn ci ñun ñi nga xam ne yàgg nañ fi te wax dëgg yàlla xam nañ réalité réew mi bu ko defee ñu mën a jiite institution yi nga xamante ni moo fi mhm. ne mhm. ndax bu dee jàng bi jàng nañ ko mhm. bu dee xam-xam bi am nañ ko kon matale nañ ko mu digoon nu loolu bi mu jëlee réew mi tamit mu def loolu promesse boobu mu mu mu mu ñu mu mu mu affirmer ko moo tax tey nii nga gis un pur euh, produit de la diaspora waaw le consul général di Mamadou Lamine Diouf. Mhm. man mii di wax ak yow. Mhm. Lamine Thiam dëkk province bu Lekko. Mhm. mu jël ma nommé ma ambassadeur itinérant. dëgg la man nag dama bokk ci cabinet président de la République. un ambassadeur itinérant. fait partie du cabinet. du président de la République. ñun ay bëtam lañ. amuñu interlocuteur. ak ke ak ak kenn. ak kenn suñu diggante ak moom. Uh-huh, uh-huh. lépp lu ñu gis. Mm-hmm. lépp luñ ko war a xamal dinañ ko mm-hmm. ko xamal. Mm-hmm. lépp loo xamante ne yónni nañu tamit ñu doxal ko ko. ñu koy doxal. delloowaat ko ni nga xam ne. noonu la ko bëggee. Uh-huh. jërëjëf. waa euh, Lamine nan nga yow yàgg nga doon taalibe murit nga yàgg nga ñëw ci gàmm yi daanaka bu ngeen jógee fii Bergamo Milan ngeen di dem nan nga gisee cette évolution la màggal gi nga xam ne chaque année daanaka ngeen ci tew ci en tant que taalibe ak tant que autorité. waaw merci Aliou dañ ci am xol bu sedd rek. Mhm. comme ni nga waxee rek. Mhm. en maa ngi koy mhm. fàttaliku. ñu ngi ko defee ci commune bu ndaw. ci kër sax la njëkkee. en 1990 91. ñu def ko ci commune bu ñuy wax commune Osnago. yàlla miy dogal tey nii foofu laa dëkk. yàlla di dogal di dem. ñuy dem ba tey jii. boo xoolee mbooloo mi ni mu toll. ñu koy defee ci ay béréb yoo xam ne ay stade. loolu wa loolu ku ku ku ku sa yaram dawul rek. dutul daw dëgg la ndaxte li yokkute la boo xamante ni. dëgg la maanaam kenn xalaatu ko woon. dëgg la boo gestoo ci sunu ginnaaw. da ngay gis euh, soxna yi. ndeysaan ni nga xamante ne noonu lañ fi bare léegi. te bu njëkk dañ leen daan compter dañ leen daan compter. dañ leen daan compter ñun ñoo daan dugg ci waañ wi ñoo daan raxas léegi yooyu yëpp daanaka tegg tegg ku ne. muy ak évolution boo xamante ne daal. wax dëgg yàlla. Euh, am nañ ci mbégte. waaye nag borom bis bi moo toll noonu. ndax nee na rek. sama bis bi saa bu ñëwatee rek maa ngi di ñaan ngeen santale ma ci yàlla ndax lépp loo xamante ni am naa ko ci bu bis bi dellusee sans borom dañ koy fulal moo tax dañuy am mbégte à chaque fois bu màggal amee ñu mën a dox di nga xamante ni mooy euh, euh, màggal yi nga xam ne moo am ci noor bi yëpp comme ni ko xamee rek yëfi xat na ndax bu ñu jógee fii ñu ngi jëm Monza bu ñu jógee Monza dinañ jéem a dellu Bergamo uh-huh. bu ci xajee sax dañoo war a dem ba Varese uh-huh. xam nga kon xat na waaye daal xam naa du ñàkk uh-huh. yeneen jotaay voilà ñu toog gën a gën a xóotal waaw ñu ngi sant ñëpp daal di gërëm ñëpp ja jërëjëf excellence kon xam naa comme ni waxee rek dana am yeneen jotaay yoo xam dañ del ci excellence ñu bàyyi la nga nga nga tàggoo ak jaxe say say recommandation bu nga xam ne dana jógee fii dem ci askan bi waaw xanaa temps bi xoj ñu rek. ñu war a dem ba Monza. Mhm. may sant ñëpp di gërëm ñëpp rek. Mhm. te xam ne yoon yemul ci benn. xëy na beneen yoon bu mu fi ñëwee dinañ gën a am jetaay bu ñu waxtaanee ak association. ñu gën a am temps de temps boo xam ne dinañ mën waxtaan ak ñëpp. en tout cas maa gërëm ñëpp di sant ñëpp. Mhm, surtout yéen ñi di leen gërëm di leen sant jërëjëf. jërëjëf excellence Mamadou Lamine Diouf jërëjëf monsieur Thiam kon di leen jox rendez ci kanam ak d'autres invités jërë ngeen jëf salaatu allazi fi kulli sahrin wa